yàlla saxal leen fi ñu bokk li ñu gëm mm-hmm. suñu borom defal ñu ci mu bu kawe suñu njot amiin amiin ba ke ñuy liggéeyal gis ci boppam bu baax ñu de ñoo ngi sant yàlla bu baax di dolli ci la ñuy sant di sant taalaloo mi ñu booleeg yéen mm-hmm. te rëccu ñu ko benn yoon di sant nag président kenn loo diir bu ñu àndeek taalaloo mu indi ñu ci loxo président ba tey li ngeen ñu defal ba tey yokkute rek lañ ci gis ñu ngi ciy gis suñu bopp bu baax altine bu jot li la li la ndey ci bu wax rek moo fi dina ñu liggéey bu ñu liggéeyee te jaay ci suñu biir bu ñu jaayee ñaari paan bu jeex ñu liggéeyaat beneen paan wàcc fa restant pour koñ ba ku soxla ñëw jënd ak ñu objet dayloo ma jiital mënuma leen a fay ndax lu ma leen wax soo ba ngoon jot ñu ngi ma toog 3 heures de demi laa leen jox rendez kenn du ci nelaw ba jot xam nga 3 heures demi naa bi tàng na ñoom ñëpp dañuy ñëw balaa 5 heures ñun ñëpp ñu ñibbi ku ne yóbbu sa sa yëf la ca des ñu wàcc ko léegi ñu topp ci samay ndigal topp ma bind ma bind ma bind naa juróom fukki nit ma ne naa ko arrêté am na ñeneen ñu soxla ba ci Binta Ndiaye ma ci ginnaaw sax dama ne ko defal équipe su ma ñaanee président su ma mayee ñu ñëw defal leen mais aw ma droit jël kenn di def charge ci moom parce que tamit boo yoree mbooloo ñaan nga yàlla am limite boo xam ne boo amee looy séddale nga xam noo koy séddale te depuis boobu ba léegi ndey ci bu mi duma bàyyi ma fen lënd bu jot ma liggéey benn paan nga ma jàngaloon benn paan eau de javel yaakaar naa ba ma liggéeyaate tegaat ci beneen damaa dem jëndiwaat sama yeneen matériel boobu mu ay paan ay siwo yu may yokke teewul boobu ba tey yàlla dimbali na ma aw ma lu bari de mais xam naa ñi ma yor kenn ku nekk faatu ba mu nii duma bàyyi ma fen kenn ku nekk lebal naa la 2500 fi mu ne nii su fenn maa joxe nga fay ma cent vingt cinq loolu di suñu yokkute ah ci juróom fukki nit kon lépp yàlla ak seen jëmm kon nag ñu koy ñaan taxawaayam yàlla na yàgg te li muy séenu yàlla na ko jot waaw si barke seen naam xam